bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul bul fàtte te mbat ma yeenu koy teg wàl luy mbat ma mu ne doomu kilifa bu jàngul tarbiyewul baalam faatu mbooloo ma dagg topp xam nga xoola ku jàngul yaruñu la mbooloo topp la sixiroo xam na ko nee na kooku xamul fu mu jëm kon kooku mooy yoon wi ndax moom li war a xew ci yoonu murit ba yow ma xëyam waxoon na demoon na ba ne euh, sëtu Serigne Touba bi jëkk wuutu sëriñ Touba sëñ Fallou koy jur ci nekkam la ko waxoon nga xam ne nee na bu doomi sëñ Bamba yi jeex jeexee sëtu Serigne Touba bi jëkk wuutu Serigne Touba sëñ Fallou koy jur te boobu li ko def xisa bu gudd la moo doon am lu mu doon wax ci sëñ Fallou ba wax loolu waaw mu ngoog <laughs> nga xam ne kon kooku mu ngi teg bëtam ci fi yoonu murit tàmbalee ba fi mu jeex lu lu war a am rek ci yoonu wax na ko mag ñi mu nekkaloon tamit yee na leen ci yoonu murit ba dara jaaxalu leen ndax Cheikh Ibrahima mooy yoonu murit daana wax murit murit yëwra man mii may murit su ñuy wax murit moom mooy murit moom ñi moom lañuy nuru nuru nuru koo dégg mu am ngërëmal sëñ Tuubaa rek melaw Cheikh Ibra la jaar ba am bu ko defee nag ñu sant bu baax a baax a baax a baax ci sant borom boole gi ñu boole moom ñu di ko gëstu topp ko di ko liggéeyal te fas ñu ko yéene yemal ak dara euh, bon demee nag ba bindee fi ñi ci ëpp umpale ko umpale goo xamante ne bii daanaka léegi morom la ko nit ñi def wala nit ñi def ko euh, kafukaay walla nit ñi def ko fowukaay am na ñoo xam ne sa aar lañ ko def defe nañ ne Cheikh aar la am na ñoo xam ne dañu defe ne philosophie euh, rasta la lenn lu nekk nit ñaa koy def tëdd ak a loolu sëñ Basiiru nee na wa min muraqabati mawlaahu xawfan wa ijlaala nee na ku gën a ragal yàlla Cheikh Ibra gisuma ko ci àdduna te sëñ Bassirou ko doomu sëñ Tuubaa nee na ragal yàlla ak Cheikh Ibra du ko yéemoon te li ma jaaxal mooy tey ji buñ daan waxtaan ci ko ragal yàlla duñ ko tudd mu te ni mu daan jàngalee tawxiid kenn accès gu ci sëñ ni mu daan jàngale gëm yàlla maanaam dañoo ci tiir gisaguñ ci day danaa wax naan doom ku ci bëgg nelaw dinga nga nelaw ba doyal ah, am na ñoom fekkoon ñuy nelaw guddi gàmm wala guddi xew-xew bu rëy mun leen jóg leen ay nelaw ku ko bëgg di nga mas nelaw ba doyal te kenn du la yee ana aadama moom ba fàttoo ba tey mu ngi tëdd te kenn yeewu ku mas a bëgg nelaw di nga tëdd ba doyal daal di wax ne doom liggéeyal leen góor yàlla Cheikh nee liggéey leen nit yàlla yi ndax watiit ak xob ci jaan la bokk waaye taxul kenn dajeg dana déggal loolu xam ngeen luy wati ak xub biit xam ngeen mooy alxuraan ak addi watiit sun borom la addi xub biitu yonent bi dafa summeeku bàyyi ko waaye nag taxutam ngërëmal yonent bi ñi xamoon ngërëmam dañoo dajeeg moom jëfal ko dëgg loolu dëgg mu ne watit ak kubbit ci jaan la bokk lu xam ngeen watit fi jaan jaar ba jàll xubbit mooy jaan bu demee ba mat day génn bàyyi fa summi ko bàyyi fa xubbit Cheikh Ibra nee ni ñaar yooyu li muy bokk bokk ci jaan taxul kenn dangar daan ne ku bëgg a dajeeg fay waccu watit ak xubbit dem riisoog jaan ja mu màtt la ñëpp coow li di leen daan ne liggéeyal leen góor yàlla yi moo gën a gaaw waa kër sëñ Bamba yi liggéeyal leen nitu yàlla ngop ngop nag <laughs> léegi euh, te li li mat a wax ci biir wax ji tamit mooy mbooleem li lislaam jàngale bind na ay téere li sëñ bi yoo xam a ko fàttali bind na ay téere yoo xam ne ni mu ciy nettali julli di ko leeral sax gisaguma man ba ma daree yër téere ba tey benn téere bu ko mën a nettalee noonu ni mu nettalee koor gisuma ku ko lu ko mën kon du ak umpale ku ko xam la ku ko jekku la ko jekku am njàng la ku jekku alxuraan la waaye nag dafa gis leneen lu ko gën a kawe mu woo nit ñi jëme leen yusufa na jaar dégg nga ko bi muy wax naan euh, يا خوم يتبعوا المرسلين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى خم قال القران وحنا ايون رجل يسعى غور جفكت تتدو تور بلغ تغور جفكت كي لومي داف في سوره ياسين مون ген غور لو جوغي دك بو سوري بوكول نيت كي دارا ньо فك رك موي نيت كو با مون يتبعوا المرسلين يتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون kii laaju leen dara dañu ñëw leen rek ma texeel leen kii kay yomb naa topp moom la alxuraan di wax ne waa jooju dafa nar a jaaxal nit ñi ba dañoo gisul ci jëfam leen lu ko yóbbu àjjana ci li nit ñi xam te ba yowmal xiyaamee danaan yaa lay taxaw mi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani minal mukarramin ay aka neexoon nit ñi xam ni yàlla fi yàlla jaar bu yóbbu ma àjjana te boole ma ci jaam ñi gën a tedd ci jaam yi daa mas a jaar ci déeg bii ngeen di defee lépp yéen ñi may liggéeyal naan fi nag woow ñu rey ko ci xew ma mos ca ndawal la moo ma may àjjana bi teewru ne bés tëñ di ngeen gis ko toog ci njoowaanu wuru te lekk ci nag woo xamante ne dafa naan ci ndox mi sama waa kër di naan rek nee na ci seen daara daaral la taxaw wax ko waaw nekkoon kon na ngeen góorgóoru doom ci liggéey te waxoon na ne buñ demee ba ci kanam ba ngeen doon yaram lu ma wax da ngeen koy téye ndax buñ demee ba ci kanam nit ñi dinañ soxla lool samay wax doom te lu waaye wax lu dul samay wax mënoo gindi doomu aadama te agsi nañ ci nag ndax léeg-léeg dangay dégg ci rajo bi nit kuy wax benn addis kenn ku ne laaj la kenn ku ne dégg ko ne kenn ku ne nekk ko sàngam nangam la ko dégg wax ji day mujj jaxasoo ba kenn du xam nañu ñuy wax te nee na téere téye wax la Cheikh Ibrahima ne téere mooy téye wax lu tudd ne day téye wax rek ba nga ñëw fekk ko waaye nee na jëf moom yaa koy jëfal sa bopp kon nag nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci roy lii nga xam ne moom lañu ñu ay lay yu leer nañ la yu set wecc yu xam fa mu jëm nee naa leen nag képp ku di Baay am nga mission mission bi mooy lan mooy wane naka la ni Cheikh Ibra daan wane naka la foo ne yaa war a wan nit ñi naka la waaye kenn waru laa wan naka la ab Baye Fall bu toogee bañ ko naa du nii rek du Baye Fall moom moo war a wax du nii ñu ko naka la mu ne nii la gis ñu naan ka Baye Fall dégg du noonu moo wax gars yi du nii naa maa ne woon nii la ba ñëpp ni nii la kon du ma jóg ci di wane ni nii la boo demee ci Jazbul Murid ma ngi ko cay wax nee na buñ demee bu mu jug jamono nit ñi li ma leen wan muy jébbalu ci sëñ ba dañ ko fiy ba dem jébbalu ci lu leen mënalul dara ñu ne ko ci lu ñuy jébbalu mu ne xam na ci ñoo xam ne ci jigéen la ñuy jébbalu jigéen waxul ne ci ci jigéen ñi li ñuy ñëw ne aslamtu nafsi waaye nee na seen dund yëpp jigéen la ñuy wër bu ñu xëyee ba ngoon lu ñu wax lu ñu sol koo seen ñu dox nee jigéen la ñuy wër Cheikh Ibrahima nee loolu mooy jébbalu ñoom jébbalu nañ ci jigéen mais am na ñoo xam ne ci xaalis lañ jébbalu ñu kenn alal rek te alxuraan wax na ko jama am maa leen wa addadahu yaxsibu anna maalahu ahladahu moo tax daana wax naan lu waay baax li jox ci sëñ Bamba balaa dégg ñëw alxuraan nee na am na ñoo xam ne jama amaalan dajale alal rek waa de doxoo di kante na yax ñu ngi foog ne ànd maaloo alal ji ax la doxoo dafa la fiy saxal alxuraan ne kalaa la yoon basana kon jëf yàgg na fi doon wax léegi ñu ñëw nag ci maanaam li mu def jaqar bi ba mu jaqar bi islam jaqar bi ko société bi tubaab bi ko woowee révolution maanaam révolution bi mu réussir lañu gisagul kenn nit ku ko def kenn fekku la ci nga def ko ba mu àgg bi ci jëkk mooy fekk aw askan muy dox ni muy doxe ay ay junni junni at di dox ci sharia di dox ci alxuraan ki mag jiitu ki ci tegu tegu ci baay jiitu doom tegu ci nga ñëw ci biir askan woow bokkook ñoom dara yëkkati ci kenn magu ci waaw ci kenn jóge ca àll ba bokkook ñoom dara boo bokkook ñoom dara sax ñu ne xëy na bokk gi nga bokkook ñoom dara moo tax nga mën ko bokkook ñoom dara ñëw fekk kenn ne leen yéen ñëpp moo leen gën tey ngeen bàyyi ni ngeen doon def def nii ma leen wax ci moom bi mu am mooy mennam Serigne Touba la ñu mës a gis fukki doomu baayam topp ko yoo xam ne ay doomu baayam lañu jox ko seen bakkan ba mu gërëm leen ba àdduna sosoo ak léegi amul yonent yàlla ko moom fukki doom baayam yi ñoo ko sànni woon ca teen ba Cheikh Ibra ñëw fekk sëriñ bi foofu ci biir loolu fekk muy jàngale mu ne sëriñ bi di nga bàyyi jàngale bi yulli li ci sa biir wan leen ñu jariñoo ko muy beneen révolution ñu wax nag mu ne leen nag li ñu xamoon ci aada yu jëkk yi ci ñi ni ñuy nekk kilifa da ngeen koy bàyyi da ngeen di santam yëkkati seen bakkan jox ko yëkkati seenub liggéey jox ko lu ma leen digal di ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi kenn du toogandoog moom ci kaw kenn du lekkandoog moom ci kaw kenn du dugg ci néegam te woowu la te kenn nit la kat na ngeen loolu amul armée bu koy dimbali amul lenn te ki koy def noble la war a falu ba noppi tamit bu doon noble kese la ci wàllu àdduna nga mën a wax noonu la doon ne xam-xamu sharia doon xam-xamu lasaraar ci njare nga xam ne kon su fekkoon ne lii muy wane ji yàlla taxul mënoon naa jàpp ñaari meloom yooyu rek am ci lim bëgg lépp bi mu doon ak xam-xam bi mu doon ci wàllu diine ci maam Seydou bu Njaay kon xoola kook lim jaay yàlla jaay na ko judd jaay ko xam-xam xam bi mu amoon teg na ko nële eh, judd bi mu teg ko nële daraja ji mu teg ko nële ba noppi jaay bakkanam ndax li mu doon def da doon jaay bakkanam eh, sëñ Madoun Thiam benn tëgg bu nekkoon Mbàkke nee na keroog ba mu jëkkee di tere ku julli ci ku ci kanam sëñ bi nee bis boobu Mbàkke xaw naa xar ndax neen dafa dugg ci jàkk ji nee na ku dul sëñ Tuubaa doo sëñ Mor Jaara sëñ ma Mor jaar kar daw nga génn jàkk ji ndax nee ba Cheikh Ibra jàkk ji dafa taxaw ci fi imam bi jiitee ba waaxoo ba fële dellu si wëlbatiku jàkkaarloog fii waaxoo ba fële daal di am kàddu yu mu wax ne ku sëgg rek am ko mu jaar sëñ moom kenn du jot jaar ci kawam xanama waaye sëñ Madou Thiam nee na diggante boobu askan wu lëmm nga taxaw ne da fas ko yéene def nee na lee tamit sëriñ jóg mi nga topp ci ginnaawam di jàng xasida di sikkar moo ko jëkk def ci àdduna ndax nee ba ba sëñ Tuubaa jikkee jóg mu yëkkati baatu laa ilaaha illallaah topp dañoo tiit ne lii lan la na topp ci moom naan laa ilaaha nag sëriñ bi nag bañ a joteeg ay bokkam sëñ Madun Caam a ko nettali boo demee bàyyi sëriñ jotara daana ko nettali lu bari mais sëriñ bi bañ a jota ay mbokkam ñëw ba tolloog euh, garabu sidd garab gi nekkoon foofu garabu siddiyam dafa am ay dëkk déedéet euh, sump waaw mu ñëw ba tolloog garabu sump bi ne ko Yoro Fall yéegal ci kaw garab gi xaar ma ndax bañ mu ànd ak moom dugg ci jàkk ne mun a ndigal di jëfe rek xaal yi da mett ne di yëg ci di yëg ci kaw ba àgg ndeke sëriñ baa ngi leen di wane ne kii moom li ma ko digal képp ko ñor leneen ñoru ne foofa lay yéeg noonu la sëñ bi mujj def ngir bàyyi gaa yi jiitu ba sëñ bi jógewaat ci jàkk ji mu cëppeelu àndaat moom di tudd yàlla toppat ci ginnaaw li lay xamal ne yàlla rekk ko taxoon jóg boobu jamono woo nañ ko ne ko sëriñ bi seetal lim gën a bëgg ñu dajale ko ñun say bokk jox ko ko mu dellu ci boppam bu dee ay sas la bëgg ñu jox ko bu dee alal la bëgg ñu jox ko lu mu bëgg ñu defal ko te mu dellu ci bopp